sa xam sa tey xam sa xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaane nag nguuruk sëriñ yi ñu tuddee ko almamiya ca Fuuta Tooro ana lu ko indi ana nu mu demee bu nu fàtte ne ngiruk deniya ñu tuddee la deniyanke yi seen nguur ki ko sos ci xarnu fukk ak juróom benn mooy seen maam Koli Tengala waaye nag ci xar xarnu fukk ak juróom ñett ca la amee jiixi jaaxa ci seen biir mu yëngatu lool booba nag fuuta naari sonal nan ko song rek dal ci seen kaw lu fuuta am ñu jë lu fuuta am ñu siif yóbbu muy guddi muy bëccëg mayu ñu leen jàmm booleeg nag ci biir njabootu Koli Tengala muy den yi xeex bi bari lool ci seen biir xeex booba nag ana ñan ñoo doon xeex ci seen biir mooy xanaa sëti buur yi ak doomu buur yi denyanke yi nga xam ne kenn ku ne dangaa bëggoon a falu loolu nag taxoon askan wi moom kaaraangeem wàññiku askan wi kenn aaratu ko ndax nag ca dëgg-dëgg xeex yooyu nga xam ne xeexu maay falu dong la woon ci biir xeex booba kenn ku ne dangaa dem bitim réew wut ay jaambur ñu ànd ak yow ngir nga xeex say mbokk loolu de moo waral ñii nga xam ne ñoo dëkkoon Maroc ak naari gànnaar yi amoon sax fitu di dugg ci ni ñu yoree Fuuta àgg di xuus ba ca biir Fuuta di lijjanti kuy toog ak ku dul toog. noona yooyu ku war a toog ak toog àgg sax ba di fal ak a folli satigi yi nga xam ne mooy buuru denyanke yi képp ku leen neexul ñu folli ku leen neex ñu fal teg booleeg nag ñu teg. ci ndoddu Fuuta ñu leen di fay galak gii ñu tuddee muudu xorma waaye booba fekk na mbooloom lislaam ma ma nga yokk ndax nit ñaa ngay tuub rek ak yenn satigi yi du doomi buur ak i buur waaye nag la tax sax mbooloom lislaam ma doon gën a yokk mooy ndaw ñi nga xam ne danoo wëri woon kajoor ak gànnaar di jàng alxuraan ci daara yu mag nanu jàpp ne lislaam dugg na fuuta toog na fuuta waaye ma nga fa dugg ci xarnub juróom-ñeent jëm fukk teeloon faa dugg lool waaye nag mi ngi soog a am doole ndax xale yaa ngi soog a dëgmal njàng mi waaye boobu sëriñ daara yi nee nañ mënatuñoo muñ ñoom li nga xam ne den yaa ngi ñu ngi koy teg askan wi ci naqar ak def lu leen neex nee nañ mënatuñoo nangu ni nu bàyyee naar yi ak doomi Maroc yi ñu ñëw di def ak dindi ci nguurug fuuta gi jëf ju mag tur wu mag ana tur woowu mooy wan Cerno Suleymaan Baal ana lum def xanaa lu rëy ana mooy kan mooy xar kanamu lislaam gu mag gi moom mi nga xam ne moom ñëpp nangu woon nañ manam ak xariñam ci yoonu lislaam moo wër dëkk dëkkoo dëkk mu teg fa tànkam ana xubbaam lan la woon nañu bañ nañu bañ ko seddoo fuuta nañu ban doxandéem ñëw moom fuuta nañu bañ deñ yanke yi di ñu teg lu ñu attanut ca noona képp kuy nitu lislaam kilifa diine mu ànd ak yow wax ba nga ne waaw ñi nga xam ne àndoon naa ñoom jàngandoo woon ca piir ca université bu mag ba fële ca Kajoor ak ndaw ñi nga xam ne jàngi woon nañ alxuraan ba mokkal ko xam ne fuuta dafa war a soppi doxalin soppi yorin ñooñu ñoo ànd nag lëkkaloo topp ci ginnaaw Souleymane Baal Thierno Souleymane Baal ànd ak nag ak wagguuram wagguur googu ana ñan ñoo ko mataloon xanaa kay dañuy lim doomi Fuuta ya doomi Kaneel ya doomi Dimat ya doomi Alwaar ya doomi Ciloñ ya doomi Oréfondé ya doomi Jaba ya doomu Mboolo Biram ya doomi Ngijolon ya doomi Gawol doomi Sewo doomi paleel ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñoo àndoon ak Thierno Souleymane Baal di bañ rek kilifay aada ya nag ñu ci bëri ñoom it dem fekki leen ginnaaw bi ñu leen fekkee mu am nag ñu bëri ci sebe koliya bi nga xam ne ñooy jàmbaari xare yi te sati gi ci ñoom lañ yaakaaroon ngir seen nguur yi taxaw ñooñu ñu bëri ci ñoom fàq dem fekki Thierno Souleymane Ba ana ñooñu lan lañ ko indi mooy xanaa mu am ay jàmbaar yoo xam ne tey war naa man nag mbootaayam moomu nga xam ne mbootaayu lislaam la ànd ak deniyanke yi dal ci seen kaw dal ci kaw baydaan yi ngir ñoo ñépp dem ca noona la amee kañ la am 1776 ana lu xew nguuruk almaami ya toog na Cerno Suleymaan Baal la yàllay dogal mooy dundut lu tax mu mënoon a toog ca jal ba ndax ci ab xare ci biir xare fa lañ ko wàccee bakkanam rot fale ca dendub dëkk bee ñu naan fóori waaye nag fekk na booba mu matal lam bëggoon yeewi fuuta ba doxandeem ya génn yeewi fuuta ba buur ya doon foo ak a caaxaan jógee fa noona nag lan fa tegee nguur goo xam ne xam-xamu diine ngay jiital soog a jiite réew ma ni ko Cerno Souleymane Baal diglee woon almaami booba nag ngir mu falu ñi ko war a fal mooy jaagorde yi jaagorde yooyu ñoom ñooy wotekat yu mag yi fu ñu daan jógee juróom benn goxu fuuta yi lañ daan jóge waaye bu nu waxee ba noppi ba tànn ki war a fal ñii nga xam ne moom lañ tuddee batu fuuta nga xam ne mooy ndaje mu mag ma nga xam ne fuutaankoobe yépp di ay sëriñ yu mag ca fuuta ñoo ca daje fa la ñuy waxee nag mu mel ne assemblée national ñu soog a wax ne diw mooy jiit waaye Thierno Souleymane Baal liggéeyam ba matoon na ndax bala muy dem tegoon na ay rëdd teg aw yoon teg ay digle muy juróom-ñaari bunt nga xam ne képp koo xam ne yaa war a jiite Fuuta danga koy jiite ci sa matug diine jiite ko it ci sa matug buur loola moo tax bu nu dajalee dogal yi nga xam ne moom la fa dogaloon muy digle yi nga xam ne moom la joxe woon juróom-ñaari ponk la ponk mu njëkk bi daf ne na tànn nit ku am xam-xam na tànn nit ku maandu nangeen tànn nit ku doylu koo xam ne du jël aladu àdduna jiital ko ngir njariñu boppam ak njariñu ay doomam ponk bi ci topp lu mu wax ana nu ñuy tànnee almaami mu ne bépp imaam boo xam ne fekk ngeen alalam di yokk nangeen nangu alal ja te wàcce ko ana ñetteel ponk bu mu ci teg mu ne dal leen ci kawam te génnee ko dëkk bi bu dëgëree bopp bañ a teguwaat ci yoon ñeenteelu ponk bi lu mu ci teg mu ne nangeen ngeen fexe ba imaama bii képp koo xam ne yaa war a falu bu mu nekk loo xam ne day mel ne nguur bàyyi dem taawut falu loolu du fi am juróomeelu ponk bi lu mu wax mu ne bu ngeen di tànn ku leen di jiite nangeen tànn imaam boo xam ne am na xam-xam te am na métier day liggéey juróom-benneelu ponk bi mu ne bu ngeen di tànn bu leen ko yemale ci kenn nit jël leen ñu bëri tànn kenn ci ñoom ana juróom-ñaareelu ponk bi mu ne bis bu ngeen demee bay tànn nangeen xool nit ki man ngeen jox ko loola na jiitu li nit ki man ñu soog ko koo jox loolu mooy juróom-ñaari ponk juróom-ñaari ponk yooyu nag kin ci njëkk a fal ngir mu doxal ko mooy almaami Abdul Xaadir Kan mi nga xam ne ñépp nangoon nañ xam-xamam ak maandoom ak njubam réew mu bees moomu nag Dagana la jóge woon di xëcc di xëcc ba Demba nga xam ne dafa jéggi woon dex gi wàlla booba booy nat ana fuy réew mu Fuuta mu bees mooma da nga ci boole goxub Dimar bu Tooro boole ci yu Aliyaabe yi boole ci bu Law boole ci bu yiirlaabe hebiyaabe boole ci bu boseya bu nganaar ak bu damga lii moo doon fuuta gu mag fuuta bi almaami jiite woon peyam bu njëkk nag nga xam ne toorodo yi bi ñu faloo moom la ñu teg mooy ci loñ ca mujj ga sax lañ ko tuxal yóbbu ko kobilo fa nga xam ne almaami ba fa la cosaanu almaami Abdul Xaadir Kan lu mat fanweeri at toog na ko ci jal bi bi mu génnee àdduna 1807 ca la almaami ga am xëccoo xëccoo yu tara tara tar waaye liñ mën a jàpp mooy fanweeri almaami ak ñeent falu nan jiite Fuuta diggante 1776 1890 lii nag moo doon taarixu almaamiya ca Fuuta di ko sante Cerno Suleymaani Baal mi nga xam ne moo tax démocratie tubaab yéemuñu ndax lu sunu maam mi defoon xam sa xam sa sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut